yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di aimer abonné ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci butim réew ak la télé du peuple Songuanté TV. KPay di transfert bi woor ak Aquaterra ndox mi woor te leer ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. bismillah yéenekaay yépp nag laa wax te ñoo wax ci Ousmane Sonko. njiitu Pastef mi nga xamante ni war nañu koo déglu mbiram ak Adji Sarr dina leer ba mel ni midi bànjile ki sondeel libération yéenekaay moo ko wax libération yemu ca dafa laaj maître Bamba Cissé mi nga xam ni moom mooy avocat bu Ousmane Sonko mu confirmé maître Bamba Cissé ne ci biir libération yéenekaay xanaa mu am changement waaye client ñu ko déglu ñetti fan ci weeru novembre révélation ci liste témoins yi ak ñi nga xamante ni ñoo doon xeex démb ca cekki ca nemmeeku tour bi nga xam ne njiitu Pastef doon na ko amal libération yéene kaay daaneel le quotidien yéene kaay jog daal ne Macky Sall def na titre foncier fa nga xam ni moom mooy foraay bu jàmm gën ndax dafa bëgg ñu woteel ko ci atum mille vingt 2024 24 heures chrono ne ban république la ñu nekk réew maa ngi sooxe ñi nga xam ni ñoom la ñu fal jël alalu réew mi di ko waxtaane guddi ak bëccëg suba ngoon Sud Quotidien ne waxtaan wi kañ mooy professeur Mamadou Diouf mi nga xam ni dàq na candidature président Macky Sall ci atum 2024 professeur bi ne moom mooy laaj réew mi par force doole mbaam Walfadjri Quotidien ne par force Ousmane Sonko daañu ko déglu ci mbiru Sweet Beauté Sonko daañu ko déglu alxamis ak jàmm gendarmerie ak policier ñoom ñépp la ñu réquisitionné amul permission amul kenn foo xam ni dina fa dem l'observateur yéene kaay ne lii de fuite la lii moom tame yuret dëggantaan la ndax lépp loo xamante ne amoon na ci secret ci gendarmerie ba ci police ñeen ni ñi siiwal nañu ko ba way taskatu xabaar yi jot ci source aané révélation ci convocation ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko les éco yéene kaay ne Ousmane Sonko auditionné le jeudi 3 novembre L'As Quotidien ne la grande offensive des alliés alliés ñi nga xam ne ñoom ñooy président Macky Sall yi fale ci parti socialiste ak ñi nga xam ne ñoo fare ci parti démocratique sénégalais nee nañu lépp loo xam ni Macky Sall wax na ko ngir atum deux mille vingt quatre ñoom jàpp nañu ni pare nañu alerte quotidien ne police pare na la police sur le pied de guerre ngir ñu déglu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko critique yéen kaay ne alerte lancée Ousmane daa ñu ko déglu ci mbirom ak Adji Sarr l'info le journal le message boo xam ne dañu ko jegle jéglewoon ñi nga xam ne ñoom ñooy waa police moo feeñ ndànk ci biir réew mi réew mi l'info quotidien ne nëbb fi dina jafe lool lii quotidien ne Sonko entendu cette semaine le vrai journal ne le code des marchés en souffrance ndax lépp loo xamante ne moom mooy rangoo ñu baadoolo mooy siim cerey buur tribune yéene kaay ne nguur gi woolu nañu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko la police et la gendarmerie en état d'alerte bés bi le journal ne alerte état d'alerte Ousmane Sonko daañu ko déglu direct news ne ki nga xam ne moom mooy fédération sénégalaise bu football ñoo ngi noos ci ay milliards ñii di club yi jaaxle lool jaaxle le quotidien yéen a kaay ne war nañu koo def jaaxle l' observateur yéen a kaay ne war nañu koo def ci réewum Sénégal li xew dafa garaaw garaaw nag lool ndax soixante mille kilo de drogue cocaïne moom la ñu jàpp valeur bi toll ci deux cent cinquante milliards moom la ñu jàpp ci ñetti at déglu leen bu baax a baax mbokk yi soixante mille tonnes de drogue moom la ñu jàpp waaye coow li xam nga mooy lan mooy diggante liiru jaan ak xaadim njaay ñi ngi toj songante TV mbokk yi daw leen ñoom ñaar lu ñu waxantewul amul kon nag mbokk yi daw leen te songante TV xaadim njaay ak liiru jaan ñi ngi koy toj ba suba incha allahu rabbi